aca l'entrée de Garga Mané Mbosonga i na TSC ka fadanga a ñaap Dilare siir la fa séri de Moundé ndeysaan le petit de grand Ousmane Mané maa ngi koy siyaar bëggee naa ko borom Espagne waaye di bëggee petit frère am ndeysaan moom grand Omar Mané maa ngi koy siyaar bëggee naa ko la France du ma ko di bëggee waa Moundé jëpp Mbosonga i na TSC ka fadanga a ñaap Dilare siir Gacha Mané ngi noonu ndeysaan Aja ngay ñaan mbër bu siling nee naa la bu fekkee bu neex bu bëree mu neex o baab feleere te